voilà juste c'est les premières notes qui vous sont venues en tête donc man le cher Guissé bu Fred Guissé voilà ci turu Fred Guissé mon may ñëw waxtaan ak yéen ci li xew fi ñu mettez xew-xew bu metti la muy coronavirus bi ñu gën ko xamee ci Covid 19 nañu jàppale suñu bopp aar suñuy njaboot. sàmm suñuy waa kër sàmm suñu réew sàmm suñuy gox ñun waa Yaraax yépp boole ko waa Dakaaru Sénégal bi yépp nañu bàyyi xel ci instruction yi ñuy joxe ñu jëfee ko c'est hyper important nguur gi toogul rek ne bu kenn génn bu kenn def lii bu kenn def lii ci bànneexam wala ci li ko neex mais dañoo nekk ci situation boo xam ne mu ngi faat ay bakkan yu bare bari bari ñun yàlla mu ngi musal faatagul ñu bari wala sax faatagul Euh, bu ñu continuer combat bi di wàññi saafante bi joxante loxo bi di raxas suñu loxo yi ak ay euh, liquide hydroalcoolique ak saabu ak ku ne loo am mais luy setal euh, wàññi joxante loxo bi wàññi booloo bi wàññi dajaloo bi microbe bi du dox di dem nit ñi ñoo koy jël di dox di ko yóbbu mais ñu gën a fàggandiku ndax fàggandiku gën faju ñun ñëpp bu ñu booloo bu ñu àndee boole suñuy doole dinañu xeex lii di corona doc stop coronavirus.